salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum sportif yi émission bu bees bu tudd ëtti sportif yi. eh waaw mais grand mais dama dégg nga ni émission bu bees bu tudd ëttu sportif yi mais loolu fa lay xewee. fii ci biir Xeweul TV si vous voulez TV ji vous émission tous les samedis à partir de 7 h mais télé bi nga vous avez la Sénégal lay mais man grand dama discipline discipline ci football. waaw lamb. waaw basket. pétanque. waaw volleyball. amul benn bu ñu discipline bépp boo ci mais vous vous que ñan ak ci invité émission Mhm. mën nañu wax supporter wax ki dem stade di football arbitre même ki sax participer émission bi mhm. kenn nous lañ pour tous les samedis à partir de 17 heures si biir Xéwal TV seen émission ëtt sportif mais jeex na grand merci beaucoup euh, bonjour c'est Sarr international sénégalais de bon maa ngi suivre émission OTS sportive ci télévision Xew TV voilà merci. Salut c'est Abou Touré international sénégalais maa ngi seetaan OTS sportive TV. ci seen télévision Xew TV maa ngi ñaan ñëpp seetaan. asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Camara alias Sopira maa ngi suivre seen émission OTS sportive yi ci seen télévision Xew TV depuis la Belgique jaajëf. Salam Salam salam Thiès asalaamaaleykum Sénégal mon Sadio Camara un numéro du sport toujours assez club culturel de grande Thiès maa ngi seetaan émission auto qui c'est une télévision Xeweul TV animée par mon frère et ami Ousmane Sow merci à bientôt. salut salut c'est Papito international sénégalais doomu Thiès maa ngi bëggee ñëpp maa émission auto sportif TV ci Xeweul gi TV chaque samedi à ne pas manquer gars eh, gars tout sport sur TV tous les samedis à 17h à ne pas rater les gars Et la spin Bob l'international sénégalais depuis Luxembourg Sénégal le le ancien lutteur du manager général di coach en même temps mu Moussante bu Thiès ñu ngi leen jox rendez-vous ci ëttu sport Xéwal TV tous les samedis waaw ñu ngi ci wax ñëpp nañ ci bàyyi xel nag waaw waaw te xam ne foofu la.